ila yowmi alqiyaamati yowmi ddin amma baadu fa salaamu aleykum wa wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk yi ñuy topp ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna ku ci nekk turam ak santam di leen ziyaar di ñaan yàlla boole ñu tawfiq defal ñu ko àdduna ak alaaxira tey mooy suñu juróomeelu jataay si xam-xam bi ñu dëgmal ngir di ko leeral ak di ko chara si xarale yi nga xamante ne moom moo jàppandi ci jamono di yàlla yàlla def ko mu nekk lu sell ñeel ko borom bi subhanahu téere bi ñuy chara mooy nuxbatul fikar في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني suñu bind bi weesu woon jàngale woon nañ li ñuy tuddee alxabaru muy xabaar ak ay xaajam ibnu xajar xaaj ko ñeenti xaaj waaye it mujjewaat xaaj ko ñaari xaaj bu dee ñeenti xaaj yi mooy li ñuy tuddee al mutawaatir te mooy lu mbooloo mu bari nettali te bu ñëwee mbooloo mu bari waxin la waaye mooy lu tàmbalee ñeenti jëm kaw xaaj bu ñaareel bi mooy almashhur lu ñetti nettali xaaj bu ñetteel bi mooy al aziz lu ñaar xaaj bu ñeenteel bi mooy algarib lu kenn nettali waaye bu la neexee nga xaaj ko ñaari xaaj mooy li ñu tuddee almutawaatir benn xaaj la beneen xaaj bi nga xamante ni moom mooy jàkkaarloog moom la ñuy tuddee al ahaat mooy li benn benn nettali benn benn nettali nag loola waxin la si waa fànn wi liñ jublu benn benn lu mu nettali mooy lu tàmbalee ñetti jëm suuf lu benn benn nettali nag ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi moom mooy almashhur muy ñett ñett ñu koy tuddee al mustafid ba tey si waxi ñenn ñi xaaj bu ñaareel bi mooy al aziz lu ñaar nettali xaaj bu ñetteel bi mooy al gharib lu kenn nettali lu kenn nettali nag mën naa tàmbalee si cosaanu càllale ga si saxaabi bi wala ki topp si moom muy at taabii ñu koy tuddee al raawi la ala loolu la ñuy tuddee al gharibul mutlaq suñ ko boyalee loolu lañ si jublu waaye mën naa ñëw nag ba si biir càllale gi loola du nekk xarib mutlaq du lu ñuy boyal moom la ñu tuddee al xaribu bi kon yaakaar naa loola leeral nañ ko taxaw nañ si si ay tomb yu am solo yàlla na ko yàlla def mu nekk lu leer si ñëpp ñu koy ñu koy topp ak di ko déglu jotoon nañoo junj tamit ne ilmu mustalaxil xadiis li muy jàngale xaaj bu ñaareel bi lay jàngale waaye du jàngale xaaj bu njëkk bi xaaj bu ñaareel bi mooy lu ñu tuddee al aaxaat mooy lu benn benn nettali tàmbalee ko ñett wàcc si ñaar ba egsi si kenn bépp xadis boo xamante ne nii dañ koy tuddee xabarul aaxaat wala axbaarul waaxid loola mustalahul xadis loolu lay jàngale ndaxte xadis bu ni ma dañ kaa war a càmbar ba xool ña nettali xadis ba ña nekk si càllale ga est-ce que am nañ ay critères yoo xamante ne boroom xam-xami xadis dañ kaa tëral ne yii mënta ñàkk si kiy nettali ab xadis mu daal di dajee si moom ngir ñu daal di jël xadisam bu fekkee ne am na benn bu soo wuutu wala benn boo xamante ne nii wala boog lu ëpp benn xadis boobee duñ ko jël waaye dañ koy dañ koy wéredil kon tey jii suñu bindu bu juróomeel mu ngi aju ci tomb bi muy xabarul waaxid ban lañ siy jël ak buñ ko jëlee ba noppi ban màndarga lañ koy jox ban lañ si du jël buñ ko delloo ba noppi ban màndarga lañ koy jox moo tax alxaafidu ibnu xajar daal di wax ne mu ne wa xabarul aaxaadi xabaar bi nga xamante ne nii benn benn ñoo ko nettali te wax naa ne benn benn bu ñu ko waxee si fànn wi waxin la mooy lu ñetti nettali wala lu ñaar nettali wala lu kenn nettali mooy lu ñu tuddee almashhuru aw il azizu mu ne wa xabaar bi nga xamante ne nii moom la tuddee xabarul ahad lu kenn nettali lu benn benn nettali neena na bi naqli adlin su fekkee ne kaka dafa maanu dafa maanu taamit dabti mokkal mokkal gu wér gu mat goo xamante ni amul benn wàññent duy fàtte naaxut duy faral di juum juum yu bari ndax nit ko dul juum moom amut suñu boroom rekk moo dul juum subhanahu ak yenentam yi nga xamante ne moom moo leen jox al isma muy da leen a aar si njuumte ndax buñ si tàbbee sax suñu boroom da leen di da leen di delloo si waat waaye ku dul ñooñee dangay juum waaye lu ñu bañ rek mooy nit kuy nettali xadis yonent bi sallallahu alayhi wa faral di bëri juum ak mokkalam wérut lool loola dañ koy delloo ak xadisam kon ki nga xamante ni dañuy jël xadisam daal nee na day nekk ku mokkal mokkal gu dëgër moo tax mu ne taamit dopti mu mokkal mokkal goo xamante gu dëgër la gu gu mat muttasili sanadi xabaar ba ba tey nekk lu jokkaloo ci càllale ga nekk lu jokkaloo ci càllale ga xëyri muallalin muy dàqu si lu ñu illaal lu ñu illaal maanaam xabaar bi du nekk lu ñu illaal wala chaazin ni ki noonu tamit xabaar bi day dàq si lu ñu tuddee feddi géewu maanaam beru wuuteeg mbooloo ma mu ne xabaar bu mel noonu nee na huwa saxiixu moom la tuddee al xabaru saxiix xabaar bu wér li daatihi ngir jëmmam ja moom jëmmam jorof da kaa doy amut leneen lu koy kàttanal ngir ñu mën ko jël alxaafidu ibnu xajar lii mu jukki lim si jublu mooy xamle lañ mooy alxadiis saxiix boroom xam-xam yi bu ñu waxee hada xadiisun saxiixun lii xadiis bu wér la wala ñu ne saxiixu albuxaari wala saxiixu muslim wala saxiixu ibni xuzayma xadiis ya fa nekk su dee Buxaari muslim wala ibnu Xuzayma xadis ya fa nekk te ëpp lu tax ñu koy tuddee xadis saxiix xadis bu wér lay doon wala boog borom xam-xam ñoo ne ah lii de xadis bu wér la ndax kon amul benn ayib boroom xam-xam yi suñ waxee xadiis bii lu wér la lan lañ siy jublu li ñu si jublu mooy xadiis bi dafa dàq su benn ayib boo xamante ni moom moo koy ayibal waaye nag il faut mu làmboo juróomi charte juróomi charte yooyu la tudd. si xamle bi muy xamle alxadisu saxiix juróomi charte yooyu nag dañ siy taxaw benn par benn charte bi si njëkk mooy lim wax bi naqli adlin maanaam kii tuxal xabaar bi ñuy tuddee alxadisu saxiix il faut mu nekk ku maanu mooy koo xamante nekkul ab kàccoor borom xam-xami xadis nag nee nañ ku maanu naka lay mel ñu ne ku maanoon li si jiitu mooy day nekk ab jullit kon yéefar génn na yéefar si lislaam maanuwut kenn du ko wóorlu si xabaaram ndax mën naa sosol diiney lislaam wala mu sosol yenentam te ab jullit dëgg du nar wala muy sosol lislaam wala muy sosol yenentam sallallahu alayhi wa sallam kon yéefar duñ ko considéré ku maanu waaye nag est-ce que yéefar mën naa sàkku xam-xamu xadiis mën na sàkku xam-xamu waaye su demee nag ba koy jàngale il faut mu doon ab jullit il faut mu doon ab jullit moo tax boroom xam-xami xadiis dañ ne charte bii ñu ne ki maanu la sa jiitu mooy mu doon ab jullit chartun fil adaa'i charte la boo xamante ni dañ kaa chartanteeg kay jàngale xadis walaysa chartan fi taxamul nekkul charte boo xamante ne nii il faut mu daje ngir nit ki daal di sàkku xam-xam moo tax boo delloo si kutubu sunna rotal nañ fa ay xadis yoo xamante ne nii ka ka déggoon jamono jëm kay dégg nekkuloon jullit comme rasulu la bi nga xamante ne buur boobu moo ko yónni si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee si yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi fekk yonent bi di jàngal di di julli di jiite timis keroog ma jàng suuratu tuur nee na ba ma déggee njàngum yonent bi sallallahu alayhi ak sellaayam nee na keroog la lislaam njëkk a njëkk a sama xol mujj naa tuub ba mu tuubee dugg si lislaam mu nettali la mu gisoo woon yonent bi salaa sallam doon ko def si jamono ji nga xamante ne tuubagut waaye ànd ak loolu borom xam-xam xadis tudd nañ ko si seen tur seen téere ya kon ki maanu day doon ab jullit su fekkee ne day jàngale waaye su fekkee ne nag day jàng mën naa doon ab yéefar moo tax boroom xam-xame xadis seeni jataayi xam-xam duñ ko tere kenn su fekkee ne dañ koy def si bërëb boo xamante ne ni du jàkka su fekkee ne kër la wala école la mu doon ab yéefar bëgg a jàng si xakay ah, dañ naan ko marxaban ndax loolu mën na leeral xolam ba yàlla baaxee ko mu daal di tuub kon il faut mu doon ab jullit bu ñaareel bi mooy kumaanu day nekk boroom xel kon dof génn na kon ki dof kenn du jël xelam kenn du jël xadiisam kii dof dof goo xamante ne nii gu sax la day dugg si chart bi kenn du jël xadisam waaye ki nga xamante ni day dof ay temps xel mi dellu si waat kookee jamono jam yi nga xamante ni day tàggook xelam kenn du jël xadisam bu ñetteel bi mooy day nekk ku majeur majeur mooy ku ñu togg jëf moo xam góor la moo xam jigéen la waaye tamit charte bi muy mu aju si charte bu njëkk bi ba léegi mooy ku maanu charte la bu ñuy sàmmonteeg si jamono ja ñuy jàngale waaye jamono ja ñuy jàng moom ab xale mën naa jàng xadis yu yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo tax borom xam-xam xadis dañuy di indi seeni gone si jataaya xam ya ngir ju taataan xadis yu yonente bi salallahu alayhi ba bu ñu màggee mën kaa jàngale kon moom it moog la waxoon si charte bu njëkk ba mooy ki maanu doon ab jullit ñoo yem chartun fi l adaa'i wa laysa chartun fi tahammul charte la boo xamante ne mënta ñàkk si jamono jax nit ki di jàngale xadiis waaye jamono bi ñuy jàng moom mën naa nekk ab xale xale ban nag mooy jàng xale bu ràññee xale bu ràññee bu xam li kay gaañ ak li ko gaañ bi xam li kay lor ak li ko dul lor moom la ñu tuddee as-sabiyul mumayyiz ñaata at lay am ñu bari si ñoom nee nañ mën naa am juróomi at waaye loola mënut tënku si at dañ koy delloo rek si xel mi nga xamante ne xale bi am na ko da nga gis xale bu am juróomi at te yeewut lool du ràññee da nga xale bu am ñeenti at yàlla def si moom ab xel moo xamante ne nii da gis ne lu bëri ràññee na ko kon ki ràññee daal mën naa toog naka la ñuy xamee ne ràññee na mooy mu xam la koy gaañ ak la ko dul gaañ moo tax boroom xam-xam xadis ne ida kaana yufarriqu bayna aljamrati wa tamra bu demee ba ràññee ne lii tàndarma bu xonq la dañ koy lekk lee xalu safara la bu xonq la dañ koy teet dañ koy moytandiku su demee ba ràññee loolu la kooku mën naa toog si jotaayu xam-xam am maa nag juróomi at ya ña ko wax ña ngi ko sukkandiku si xadisu mahmud ar rabi moom xale la woon si mujjanteelu dundug yonente bi salallahu alayhi wa sallam muy fàttaliku lu doxoon digganteem ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu naan aqaltu majjatan majjaha annabiyu salallahu alayhi wa sallam fi wajhi wa anamnu xamsin maa ngi fàttaliku yonente bi salallahu alayhi wa sallam mas naa guux ndox yàbbi ko sama kanam ngir barkeem làmbu xale boobee ndax loola dafa bokk si jagle gi nga xamante ne ni yonent bi sallallahu daf ko jagle woo mooy lépp lu bàyyeeku si yonent bi sallallahu alayhi ak barke la boo xamante dañ koy barkeeloo ay loram ñaqam lépp lu bàyyeeku si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay saabaam dañ ko daan jëfandikoo yonent bi sallallahu alayhi ajam gu mujj gi watu na jël kawar ga daal di koy séddale nit ñi nga ñu daal di koy barkeeloo loolu nag amul benn mbindeef bu ñu koy defal ku dugg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek lañ ko daan defal moo tax ba mu fa jugee saaba ya xam nañ ne Aboubacar moo gën si xeet wi gannaaw yonentam sallallahu alayhi wa sallam waaye kenn defalu ko ko saaba yi ba Aboubacar jugee xam nañ ne Omar moo fa gën waaye kenn jëlul ay jeexitalam di ko barkeeloo kon loolu kenn du ko defal ab mbindeef yonent bi rek lañ ko doon defal sallallahu alayhi wa ba mu faatoo nag ba ay jeexitalam jeex. loolo moom jeex na si kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di seex ndox yàbbi ko si kanamu xale bi ngir barke boobu daal di koy topp xale bi ba mu ko koy defal nee na juróomi at la amoon te loolu maa ngi koy fàttaliku ñu ne ah comme que Mahmoud ar Rabi mi ngi fàttaliku lu ni mel te jamono ja koy yonent bi di def loola mi ngi amoon juróomi at kon xale bi am juróomi at ràññee na kon kooku mën naa jël xam-xam waaye nag loola du ne luy baamtu si xale bu am juróomi at bu ne xale mën naa am juróomi at ràññee. waaye mën naa am juróomi at du ràññee moo tax tënk ko daal si koo xamante ne ni ràññee na la kay gaañ ak la ko dul gaañ loolu mooy tënk bi gën a bi gën a bi gën a wér kon il faut mu doon mag sa jamono ji muy jàllale xam-xam bi jamono ja muy jàngale xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag buy jàng moom mën naa doon ab xale niki noonu tamit ki maanu ba léegi ñu ngi si charte bu njëkk bi kese de kiimaanu mooy ki nga xamante ne nii dafa dàqu si lépp luy xawwi mbañuk rusam wala lu koy kàccoorloo loo saaliman min asbaabil fisqi wa xawaarimil murwa lépp lu koy da koy sori kon ki ñuy jël ab xadiisam doo ko gis mukk muy dox si mbedd mi mel melin woo xamante ne nii képp ku ko seen da naan kii du nit ku yiwu si seen jamono ñoom waaye nag suñ jamono ji moom boo doon xool ñañ war a jël si ñoom xadiis daanaka ñu néew la doon ndax nit ñi amatuñ lu ñuy rus moo tax lii xaaw wi mbañuk rusuk nit ki loolu day dellu si aada day dellu si aada ku nekk xam na ne nit ku yiw suñu société bii suñ ko gisee mu daal di sol colub tubaab jël yëreem ya def ko defin woo xamante ne nii dafa xotti lenn li wala boog mu wàccee yëre ya sax wala wàccee tubéy ko comme ni ko ñenn si waxambaane ko di ko defee da xam ne kii du nit ku yiw du nit ku yiw loolu nag suñu xoolinu société la waaye ñoom seen societé dafa rawoon dafa rawoon dimension boobu moo tax am na si ñoo xam ne dañ daan taral ba nga xamante ne dañ naan kii ñuy jël si moom xam-xamu xadis duñ ko gis muy dox ak boppam neen suñ ko gisee mu daal di dox boppam neen dañ naan kii moom dootuñ jëlati si moom xadis ndaxte yiwut yiwut baat boobu tënk na lépp mooy dafa war a nekk nit ku yiwu du fen du tux cigarette du fréquenter ay grand place yoo xamante ni nii ay waxi mbóosóor lañ fay wax du caaxaan du lekk alalu jàmbur du lekk riba lépp luy kàccaruloog nit ki da koy sori bu mu si def rek kooka tegee nañ ne la xadiisam mbokk yi yaakaar naa charte bii kese muy maanu balaa ñu kaa dëggal si nit ki ne kii ku maanu la loolu lu jafe lay doom ñan ñoo koy dëggal nag mooy ña xam jaar jaaruk ña nettali xadiis ñu ñu tuddee nuqaadul xadis ñoom ñooy wax ne diw mii de gëstu naa ay mbiram wala ñoo bokk benn jamono waaye day def lii ak la comme ku mel ni Shu'batu bnul Hajjaj ku mel ni Abdurahman ibnu Mahdi ku mel ni al imaamu Ahmad Yaxya al ku mel ni al imaamu al Buxaari ku mel ni Abdurahman ibnu Abi Xaatim ak Abu Xaatim Abu Zur'a moo tax ñu taalif si ay téere téere ñu tuddee kutubu rijaal fu ñu waxee nit ki ne haada rajulu adlun kooku xamal ne charte boobu matale na si moom waaye suñ ko jamee rek da ngay dañ koy jam si lépp loo xamante ne nii mën naa mën naa dàq maanuteem boobu ba su fekkoo sax day def bidaa def katu bidaa la dañ koy tudd ndax bidaa yi dana ñëw ñu koy leeral insha allah kii def bidaa su fekkee ne bidaa bi muy def dafa oyof loolu dëgg la mën nañoo jël xadisam waaye si ay charte waaye su fekkee ne biddaa bu rëy lay def loolu da kay kàccoor loo mën naa dem sax ba génnee ko si diine lislaam wala yaadu billah loolu yépp borom xam-xam xadis dañ koy leeral di ko gëstu di xool ña ñuy jëlee si ñoom xadis kon critère la yoo xamante ñu am solo la kon moo mooy charte bu njëkk bi an yakuna adlan charte bu ñaareel bi mooy taami day mokkal waaye mokkal gu dëgër lay doon mokkal gu mat mokkal bu mag mooy buy jàng ab xadis wala mu nekk si jataayu xam-xam bi day déglu bu dégloo mokkal na lañ fay joxe lépp ndax ñoom nag yàlla da leen a joxoon ak mokkal ñenn ñi dañ daan ñëw di seen ab di bind waaye ñenn ñi dañ daan toog seen loxo yi neen lépp lu ñuy wax si jataay bi ñu ngi koy déglu buñ paree mokkal nañ ko suñ fa jugee nañ ko mokkalee buñ koy jàngalee noonu lañ koy jàngalee waatee duñ sa yokk duñ si wàññi. loola nag boo ko doon gam-gam lekk suñuy niti jamono danga nga naan ah est-ce que loola lu mën a nekk la ah kay lu mën a nekk la ñun mënuñoo mokkal ndax jamono lu muy gën a dem rek nga gis ne mokkal di gën a néew waaye ñoom seen jamono dañ daan mokkal mokkal goo xamante lu jéggi dayoo la moo tax si wàllum mokkal qissatul imaamil Buxaari bi nga xamante ne nii xewoon naag moom waa ahlul Bagdad loolu dara gënu kaa yéeme al imaamul Buxaari dafa ñëw jugee dëkkam war a dem Bagdad waa Bagdad ne dañ koy teertu fekk boobu turam turam sii na lool dañ ko doon dàkkantelee sax amirul muminina fi l xadis buuru jullit si xadis al imaamul bi mu toogee. laataa muy toog fekk defalal nañ ko ay pexe ngir nattu ak ngir natt ak mokkalam ba xam dëgër na wala dëgërut ñu jël fukki xale xale bu nekk ñu daal di koy jox fukki xadiis xadiis bu nekk ñu jox ko càllale guddut càllaleem jaxase ko bañ ñëwee ñu toog si jataay xam-xam ba xale bu njëkk ba ba daal di jug commencé di tari mu ne ko xadiisu sàngam yaa ima yaa amiral muminin loo si xam mu ne ko boobu de xaw ma ko ndax càllale gañ ko jox bokkut ak ñu bokk ak mat nu ba muy yàq ba ba fukkam jeex noonu lañuy def ba fukki xale ya jeex ñi toogoon si jataay bi te laloon piège bi xam nañ ne kii xam na piège biñ ko waaye ña toogoon si jataay ba te xamuñ na mbir mi doxee ñoom commencé na ñoo sikki sàkk naan kii mooy al imaamul Buxaari ndax ñoom miinuñu nit ñu koy dàkkantele amirul muminina fi l xadis ñu koy laaj lu tollook téeméeri xadiis mu ne xamuma si benn waaye xoolal ak mokkaluk Buxaari yi ba mu paree mu daal di dellu si waat xale bu njëkk ba mu ne xadiis bi nga njëkk a tudd càllale gii nga ko jox càllale googa nag du càllaleem waaye bii mooy càllaleem subhanallah si benn dégg la mokkal lañ ko sax si anam bu bu jubut mu delloo ko gannaaw ba mu tuddee la jubut delloo ko sa la jub moo tax ibn xajar nee na laysa al ajabu min xifdi al buxaari sawaaba wa innama al ajabu min xifdihi al xataa wa raddihi ila sawaab li yéeme mooy buxaari yi naka la mën a mokkalee la ñu juum ñoom bëggoon ko seet piégé mu mokkal ko si benn dégg-dégg indiwaat ko ba mën kaa delloo sa la jub ba mu waxee loolu nag ñëpp daal di koy nangul ne moom moo gën a mokkal kon mokkal ñoom yàlla kal si boroom xam-xami xadiis ñaari xaaj la mokkal bu njëkk yi wala xaaj bu njëkk bi moo leen tuddee dabtu sadri maanaam mokkal goo xamante ne nii nit ki da koy wattu si dënnam lépp lu mu dégg da koy mokkal waaye bu ko mokkalee da koy nafar nafar ko ba mu téye ko ba mu dëgër këng ba ëllëg ak si biir bu ko bëggee tasaare wasaare ko mu daal di koy yomb loola lu am solo la si ñi nga xamante ne ni yàlla da leen a jox mokkalu dënn kon loola mooy xaaj bi njëkk bi mooy li ñu tuddee dabtu sadri su fekkee ne nag moom nit la koo xamante day bind yore ab kayitam bi bind ba léegi loolu da nga nangul nañ ko ko waaye charte bi rek mooy bu tee toogee si jataay xam-xam ba mu bind lépp lu mu fay déggee bu paree nag mu daal di jël kayitam wa denc ko ñoŋal ko ñoŋal ko foo xamante ne ni ëllëg ak si biir bu bëggee jàngalee da koy dem jëlaat mën kaa jàngale te dara du sa wàññeeku loolu ñu tuddee dabtul kitaab kon ñaari façon mokkal yépp am na donte façon bu njëkk bi moom lañ gënoon a siiwee ñoom mooy mokkal goo xamante ni seen dënd lañ ko daan mokkal waaye ànd ak loolu ñu bëri si ñoom daan nañ bind ndaxte dañ koy mokkal ba noppi waaye du tee dañ koy bind ndaxte nee nañ mokkal du wëy nit ki ni muy gën a magal ak mokkalam di wàññeeku am na ñoo xam ne dañuy dem ba magal sax ak feebar daal di leen dab feebaruk naax su ko defee seen mokkal day wàññeeku naka la ñuy ne nit ki ku mokkal la loolu ay baat la yoo xamante ni borom xam yi xadiis dañ ko koy màndargale mooy ña ma tuddoon mooy nuqaadul xadiis ñay leeral gaa gaa ña mokkal su ko defee bu ñu waxee fulaanun xaafiz kii ku mën a mokkal la walla ñu ne daabit ku la wala sax ñu ne musxaf am kaang la am kaang ñun ba suñ société bii dañ koy jëfandikoo si nit koo xam ne dafa wattu alquran wattu gu wér dañ naan hii kii de mu am kàng fóore la nga xam ne dafa boole wattuk alquran ba pare xam-xam-xamu fiq loola ahlul xadis ñoo sa jiitu moo tax bokkoon na liñ daan wax abu nuaym alfadl ibnu dukayn kaana yulaqabu bil mushaf li shiddati xifdi dafa mokkaloon mokkal ku dëgër bañ naan ko doon wax ab kàng la boroom xam-xam xadis nag balaa ñu naan la yow am kàng nga wala ñu ne la yow ku wattu nga il faut que mu wóor leen bokk na lam leen di wóoree mooy dañuy dajale say xadis gam-gamle kaak say xadis moroom xool la ngay juum ak la ngay dëppoog ñoom ak bu ñaareel ba mooy ay temps ñu ñëw pour defal la ixtibaar mooy defar la test woo xamante yow doo ko yëg ngir xool ba xam yow sa mokkal mi ngi dëgër wala du dëgër comme ni waa Bagdad defaloon al imaamul Buxaari test boobee xool ba xam moom ku mokkal la ba mu leen wóore ne kii ku mokkal la ñoom ñëpp dañoo kaa simil chapeau ne ko anta amirul muminina fi lxadis abu nuaym alfadl ibnu dukay mi nii moom it defaloon nañu ko loolu kaka ka defaloon mooy yaxya ibnu main benn bis yaxya ibnu main dafa ànd ak ahmad ibnu hanbal ak keneen ku leen ñetteel ñu jugee si jataayu abdurazaq assanaani ñu ne nañ jël si jataayu abi nuaym dem jël si moom xam-xam si yoon wi ibnu Ma'in ne man daal bu ma demee tey góor gi moom dinaa ko testé Ahmad ne ko bul ko def jaru ko moom ku mokkal la mu ne ah kay dinaa ko def ibnu Ma'in bi mu ñëwee toog commencé di jàng jàng juróom-ñeenti xadis fukki xadis Abu mi ngi toog xam ne ne loolu ay xadisam la yu mu jëlee la si ay sëriñam fukkeelu xadis ak benn bi mu daal di raxee ko xadis boo xam ne du xadisu Abi Nuaym Abu Nuaym ne ko hada laysa min xadis yi booba bokkut sama xadis mu daal di continuer ba àgg fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk ñaar fukk ak benn mu raxewaat ko beneen bu bokkut ak xadiisu abi nuaym abu nuaym ne ko hada laysa min xadiis yi foofa nag nim ko ka waxee wuute naag wax ju njëkk gi ndax njuumte bu baamtoo loolu day xaw a niroog ak tayeef wala ak sàggan mu ne ko loola ngay wax du sama xadiis mu demaat ba fanweeru xadiis fanweeru xadiis ak benn mu daal di koy raxee beneen xadis bu bokk ndax xadis abi nuaym foofu nag moom waxu ko bii nag du sama xadis dafa taxaw mu joxoñ ka leen ñetteel mu ne yow xale nga lii moom ñeme kaa def maanaam bëgg maa teste xaw yi sama sutura loolu moom ñeme woo kaa def muy xool Ahmed ne ko yow ku ragal yàlla nga gaw ma ne yow lii danga ko def geesu xool ibnu maïn mu ne laa ixaaluka illa anta alfail yow rek yaa ko war a mën a def ndax ku sob nga daa di koy weq ba mu ko weqee mu daal di këpp ba mu jugee nag Ibnu Maïn Abu Nuaym daal di mer dugg ni biir néegam Ahmed ne ko te du waxoon naa ne ne góor gi ku mokk la jaru ko mu ne maa ngi lay seedeel ne weq bi mu ma weq moo ma gënal àdduna ak li si biiram ndax jëlee naa si xam-xam ne moom mokkalam ba léegi mi ngi dëgër ñooñu ñooy rijaalul xadiis ñooñu ñooy ñiy wax ña mokkal ak ña mokkalut muy ñaareelu charte bi nga xamante ne il faut nit ki kay nettali xadis daal di daje si moom ngir ñu mën a jël xadisam ñaari charte yooyu la taxaw suñu jotaay bu jëlee juróomeel bi incha yeneen charte yi des mu ñett suñu jotaay bu juróom-benneel bi incha allah dinañ ko leeral hada wallahu aalam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Jalfa TV